ñuy jël mi xëy dikk ak ñun ci daanaka voilà yu bari lu yéenekaay yi xëyee moom yéenekaay bi di Sud Quotidien ca loolee la xëy mu di bëccëg gi ñu jagleeloon démb soldats yi journée des forces armées njiitu réew mi Macky ak kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa jëm ci wax ni Sénégal amee yéene xeex wàllu terrorisme yéenekaay bi nañu Sénégal du dara loo xamante ne ji ma ngi koy gannaawal njiitu réew mi Macky Sall taxaw na taxawal réew mi ba noppi nag engagé ñii di l'armée bi ngir ñu fas yéene xam ji te sant na ñi nga xamante ne ji ñoo yor wàllu këyit yeeg nationalité yi bala ñuy joxati nit nationalité nañu ko lijjanti ba xam mooy kan ak fan la bokk bu ñu def rek nit ku ñëw ñu jox la nationalité bu Sénégal le soleil moom it xëy ci moom i mbir ak lenn ci kàddu yu président yëkkati woon mu di il nous faut une culture de sécurité maanaam suñu doxalin suñu dundin ñu fexe ba li nga xamante ne ji mooy wàllu kaaraange ñu koy wattul suñu bopp loolee président moo ko wax leneen loolu it euh, wax na ko ca ndaje ma yéen a kaay bii di le quotidien moo ci dellusiwaat nee na xeex bi ñu xeex wàllu terrorisme jàmm moo làqatu ca ginnaaw yéen kaay bi gis Macky Sall ak doxalin bi nga xam ne moom la am jëm ci wàllu terrorisme ak na George Bush ma woon ca États-Unis doon doxale ak terroristes yi ci gàttal daal lépp loo xam ne yëkkati na ko nay kaddu kaddu la yu tàng jër yoo xamante ji noonu la ko yéenekaay bi gisee populaire moom it dellu si eh, ci na ñi nga xamante ne di renseignements généraux yi ñu ngi koy nas laata xel eh, xalaatam di sotti président nee na bëgg na ñu xam ñooñee ana yan pexe la ñuy teg ak ñi mu jàppale l'armée bi ay avion de chasse ak de patrouille yu mu leen jox populaire moom it xëy na ci dellu siwaat la tribune ñëw ci lu aju ci Macky Sall ak kaddu yi mu yëkkati jëm ci ne dañuy teer tere voile intégral bu weesoo looloo yéenekaay bi nañu nag ñi mu gën a sonal jamono ji moo di imam yu 15 yi imam yi nga xam ne dañuy jël diine dem ba ci boole lu bokkul ñu leen di wooye ay radical ñooñee Macky Sall teg na leen pression yéenekaay bi di tribune moo ñu wax loolu enquête moom xëy lu aju ci euh, burxaay yi nga xamante ne ji ñi ngi ci doon wax démb ci président ne dañ koy tere ci réew mi yéen bi dem xooli burxaa dëgg-dëgg li ci am ñi koy jëfandikoo ñeneen ñu nu ñu leen di gisee en tout cas du dara lum ci bàyyi bokk na ci kàddu Oustaz Alioune Sall nee ci xët mu njëkku yéen kaay bi mu ne lu aju ci muuraay diine moo ko sant jigéen waaye muuru ba ne man laaj moom loolee du obligation eh, ci benn jigéen Mamadou Diop Decroix li mu wax mooy Macky Sall mii bañ ko ko imposer diine na ko leer ne moom it munta imposer askanu Sénégal ak col ko maanaam li ñuy sol réew mi quotidien dikk ak ñun ci arabisant yeeg li ñu tontu président Macky Sall moo di lii nee nañu jamono ji nga xamante ne ji Macky Sall gëmu na ay gëtam ci nguur jigéen ci réew mi ba góor jigéen ñuy def lu leen neex war naa mën a bàyyi kon nit ñi ñuy muuru ki mu réeku ci yéen yi tey yëpp moo di Khalifa Sall maire bu Ndakaaru euh, ci ndaje moo xamante ne ji euh, waa Y'en a marre ñoo ko woote woon ca place du souvenir mu di jury citoyen bari na lu mu fa waxtaan ak gaañi lenn ci yéen yi xëy ko moo di li mu ne kenn mënu koo tëye las dikk ci moo di personne ne nu nous loole loolee Macky euh, Khalifa Sall moo ko wax ci grand place ñu wax ko ci olof mooy dañuy dem kenn mënu koo tere xalifa Sall ba tey moo wax loole mais ni a ngi koo xam ne Pape Libération waxaat na ci mbiram mu di Doudou Ka moo jiite moo nekk ci xët mu bi jàpp nañu Doudou Ka kaa dëgg la ca FONGIP ndax li mu def mooy frère ak nijaayam la recruter def leen ay euh, conseiller wutal leen salaire foofee ca kër ga ñu dellu ci kër gi mu di l'observateur mi xëy dikk ak ñun ci Macky Sall mi mu ne mi ngi défier Abdoulaye Wade ay euh, pexe yu muy teg trésor euh, lu toll ci milliards en tout cas daal xaalis bu bari la l'observateur xëyee ci mbirum Macky Sall leneen lu mu xëyit moo di ci mbirum Rocky Balboa mi ngi nale ci tappale ndax jàppal moom gardekatu buntu boîte de nuit la woon maanaam videur euh, Suisse def na fa ñetteet yoo xam ne amul licence sunu lamb di laaj ndax Rocky Balboa du ñu ko génnee ci lamb ji benn yoon par voilà en tout cas duñ ci tontu euh, yow dañ lay bàyyi nga daw rek comme ay wax nga bëgg euh,